mobilisation de fonds pour Koki daara boo xamante ni plus de 5000 nit ñoo fay yewoo ñu leen di dundal Boubacar Diallo mi ngi grand théâtre mu ñu tënkal tey la fa xew parce que la température actuelle da nga sol sa écharpe tu es dans en tout cas dans dans les couleurs n'est-ce pas euh, suba événementiel bi Boubacar la température grand théâtre mm-hmm. waaw jërëjëf imam Biram Pouy lay nuyu professeur di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di am mbégte euh, ñëw fii ci Grand Théâtre xam nga man saa yu diine woote euh, damay sawar jàppale képp koo xam ne da nga nekk ci diine jàppale ko koo xam ne da nga yëngatu ci diine daaray kokki moo woote képp koo xam ne da nga nekkoon ca daaray kokki jànge fa ñooñu ñoo def mbooloo mu takku mbooloo mu mag ne dañuy gën a ñoŋal daaray kokki gën ñoŋal dund yi nuy ndongo ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk maa ngi nekk ndokk Ahmed Lo Ahmed nag moom moo yore lépp luy jàngum alxuraan ca daaray kokki euh, sang bi maa ngi lay nuyu di la siyaar ah, sëñ Babacar ñu nuyu ñu nga seqal jataay bi euh, muy imaam Tahir Fall di kenn ci ñun ak euh, Oustaz Biram imaam Biram moom tamit nekk koo xamante ni collaborateur la boo xamante ni yàgg nañ liggéey di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi siiwul télé bi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq ba li ñu néser ak naal yëpp yàlla sottal ko ci anam goo xamante ni anam lan ngeen mbébét lan mooy seen yitte dëgg-dëgg ba mbooloo meeg réew meeg publicité yëpp jëm ci euh, ndaje bi ñi ngi xam ne ñoo jànge woon daaray kokki war fi waaw liy yitte ji mooy daaray Koki kuñ ko wax ni la li fa nekk ci ab lim mu ngi toll 5497 euh, muy juróomi junne ak juróomi téeméer yu manqué ñetti nit Eh, daara ji yor leen seen lépp yor seenum njàng yor seenum faju yor seenu lekk yor seenu nekkin yor seen tëdduwaay yor seen lépp daara ji yor leen lépp eh, ci li muy njëkk a dem mooy ñii li leen yor fu muy jóge fonctionnement daara ji fan lay jóge seen en charge fan lay jóge jógewul fenn nag fudul ci yàlla suñu borom mi nga xamante ni ci la daara ji sukkandiku ak bon volonté yi nga xamante ni dañoo bëgg lu baax di jël seen loxo di ko ci dugal ak mbooloo mi nga xamante ni yàlla da leen a baaxe woon ñu jaar fa yàlla def yàlla may leen wërsëg ñu wëlbatikuwaat di fay bor fay bor boobu nag moom motiver ku mel ni alaaji As Ndaw nga xamante ni lii mébétam ak lii yéeneem daara ji seen fonctionnement mu dem ba am fonds boo xamante ni moom moo koy assuré mu lancé woon ko toll na ci at ni dafa bëgg euh, mille personnes yoo xamante ni kenn ku nekk day capitalu daara ci nga xamante ni capital boobu kenn du ko consomé waaye investissement lay doon bénéfice ba cay jóge di delluwaat ci fonctionnement daara ji loolu moo waral daara ji mobiliser wu ànd ak as ndaw ci ci bëgg-bëggam boobu ci yitteem jooju yéene jullit ñi aw yiw ndax loolu yiw la woo xamante ni yiw gënu kaa rëy euh, yiw ak yeete mu am mu bu amul ay fonds tamit dana dana dana ñot ñoti ci mission boobu nga xamante ni moo ko tax a jóg kon nag bu ciy woo jullit ñi daleen leen ciy woon ngir dimble ndax suñu boroom moo wax ni yéen ñi nga xamante ni gëm yéen a gëm yàlla ma ndax duma leen tegtal benn commerce boo xamante ni ëllëg dana leen mbugal dana leen musal ci mbugal mu metti bakkan jihaat ci seen alal te jihaat ci sa alal nag ci jamono bii ñu toll nii dara gënu cee rëy taxawu ñi nga xamante ni ñooy jàng li gën a màgg ci kaw suuf muy téereb yàlla bi te loolu ci la daara yi kokki nekk ci la daara yu bari nekk loolu daal mooy li tax a jug objectif général bi nga moo tax a jóg mobilisation bi loolu dong la. Euh, ñoom xale yooyu yëpp. cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept personnes war a sangu war a ndékki war a añ war a reer war a am ay yére war a faju loolu. yéen a koy yéen a koy assuré te kenn du fay. waaw loolu lépp daara ji moo ko jël en charge way jur wi am bu xasee indi doomam euh, daara ji do tegu ko dara xanaa lum coobare wu di ko def ki nga xam alxuraan am diine am xam-xam yar ko ci àdduna yee ko mu dem ma dem yàlla buñ gisanteeti ba yowmal qiyaamati loolu mooy bëgg-bëggu daara ji Koki ndax dafa am wax ni man bëggumaa nekk sëriñ boo xamante ne day jariñoo taalibe bi waaye dama bëgg nekk sëriñ boo xam ne day jariñ taalibe bi loolu mooy mission bi ñooñu nag 5497 yooyu dañ leen a organiser ci ay dortoir de santé bu ñu feebaree fa la dem xale yi bu ñu bëggee tëdd am na fu ñuy tëddee ñi ñuy jàngee tamit dañ leen a séddale ci ay groupe pédagogique yoo xamante ni groupe yi du dépasser nombre boo xamante ni kiy tenir groupe bi da am problème ba noppi nag am ay superviseur am ay ay moniteur am lépp loo xamante ni maanaam jàngale ak yar dakaa laaj euh, bu ñu jugee euh, ci loolu imam lan ngeen yittewoo dëgg-dëgg lan mooy euh, yitte principal bi nga xam ni soxla daara ji soxla na ko. daara ji lépp yitteem la mën naa tudd ay secteurs yu bari bi ci njëkk mooy secteur enseignement ndax nombre bu mel noonu buñ buñ buñ ko tuddee da nga wax ni ñi leen di jàngal fu ñuy jóge ak ñi leen di jàngal li leen yor fu muy jóge loolu lépp daara ji moom mooy jéem ay effort boppam. xam ne ne état la war jàngale ak yar loolu mission état la ku ci ñot ñoti tamit état ngay dimbale rek donte état mu ngi ciy jàpp waaye nag charge bu diis a diis la donc manque manque manque ay enseignants yoo xamante ne te li ko waral mooy lan ñàkk ay fonds yoo xamante ne mën nañ cee jël ay jàngalekat yoo xamante ne dañuy assurer enseignement bi loolu benn la ñaareel bi wér-gu-yaram bi xale bi bi feebaree dem ci dispensaire bi day dem ba jeex tàkk ba garab dootu fa nekk nga xam sëñ bi mooy mujj làmb ci poosam ñuy dem ca pharmacie bi di jëndi garab loolu tamit diis a diis la beneen bi mbooloo moom mbooloo toll noonu kuñ ko wax danga ni waa ñii ñoom seen assainissement wala seen environnement bi ñuy dund nu muy demee loolu ay fosse lañ yor ñun ay fosse septique lañ yor ci mbooloo mu toll noonu am benn auto vidance boo xamante ni daanaka daara ji ba mu ko amee place nga xamante ne da nga naan lii ci lii laa ko orienté lii ci lii laa ko orienté dangay def rek lu ñëw nga dugg bu fekkee soxla taxawal na nga faj loolu loolu loolu tamit bokk na ci li tax daara ji fas yéenee levée de fonds bi beneen bi mooy dund bi daara ji une tonne quatre cent lay une tonne quatre cent une tonne cinq lay lay sóor par jour. une tonne quatre cent la ñuy sóor bu nekk. ci ceeb loolu la ñuy consommé. ak Moustapha Ndiaye ak euh, ak ñeneen Abdou Aziz la ñoo xamante ni jaaruñu fi waaye nag gis nañ ni liggéey bi am na lu leen ci war ñu ciy dugal seen loxo waaye nag loolu dafa doyul moom daara ji mu am ay source ay source yu garanti yu rentable loolu la so loolu daara ji soxla beneen bi mooy facture facture électricité lenn la ci jafeñ-jafeñ yi nga xamante ni daara ji dakay koy jànkonteel léegi daara ji da koy jaanante te daara ji nag mission bi mu yor mission la boo xamante ni mooy ba sëñ ma saxiir yoroon moom mi fonde woon daara ji mooy ni ñaan naa yàlla daara ji dem ba nekk xeetlikukaayu mujjug jamono. waaw. Alaaji Amat ñoo ngi woo Sénégal yëpp kenn ku toog sa kër dinañ la jox numéro euh, ñëpp xam mënuñoo ñëw Grand Théâtre am na numéro Orange Money am na numéro Wave am na nu compte bancaire waaye ku ko ci def sa bopp nga ko defal yow mi nga xam ne yaay jàngal alxuraan képp koo xam ne def nga euh, ci daara wala ci njàngum alxuraan la suñu borom dencal ëllëg yow mal xiyaam. waaw ah, suñu borom lim la dencal bari na lool. ambatat sabaa sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba nee na yow mi nga xamante ni da jël sa alal def ko ci yoon yàlla dafa mel ni nga jël benn pepp ji benn pepp mu mu maq ji ko boo ko jiyee buy génnee juróom-ñaari gub lay génnee juróom-ñaari gub yooyu gub bu ci nekk am téeméeri pepp loolu benn la te sax nee kenn xamul fu mu toll beneen bi yàlla nee na képp ku def lu baax man jaa abil xasana falahu asru am saaliha ku def lu baax boo defee benn ma fay la fukk waaye fukk yooyu sax léeg-léeg yàlla neen dama koy ful ba kenn du xam ba kenn du xam fu mu yem sarax la te sarax dafa am solo dafa am solo ci ci ci ci nit yomal xiyaam bëri na ñoo xamante ni am na ñoo xam buñ buñ buñ buñ ñëwee laaj leen waaye yéen lu leen dugal safara mooy ñun de daawuñ julli lam na ko minal musallin waaye walam na ko nutaymal miskin amoon na ay miskin yu fi nekkoon yu su amoon soxla léeg-léeg ñu xiif duñu am lu ñu lekk te duñu daawuñu leen leel loolu de moo ñu dugal fii seen loxo jotul seen ginnaaw seen loxo jotul ginnaaw moo tax daara ji porté def gratuite ndax bu deful woon gratuite dana bari ñu war a jàng te duñ jàng dana war dana bari ñu war a baax jox leen ko loolu sarax la te sarax boobu dara gënu kaa màgg te yàlla sax nee na nit ki nga xamante ni dafa dem ba jublu buntu dee li xelam di njëkk a dem mooy delluwaat ginnaaw waaye dañu damay saraxe ndax ma bokk ca ñu baax ja ndax gis na la ko yàlla wan ca ña saraxe woon lañ lañ la leen yàlla xéewale ca ca yomal xiyaam teg na ci bët ba tax mu am xeew suba ak jàmm incha allah jërëjëf sëñ Aboubacar ñu ngi ñaan seen télé bi ak ak ak rajo bi yëpp ñu ngi ñu ngi ñaan mu bokk ci télé yi nga xamante ni ëllëg dañu bokk ci première au niveau au niveau national bokk ci télé yi nga xam te noonu la ko yu mag yi amee gërëm bu baax a baax di la sant mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo kon kenn ku nekk ci yéen am na loo xam ni war na la ci daaray Koki dafa war a nekk engagement ci yéen dafa war a nekk liggéey ci yéen dafa war a génne as tuut ci lu mu am ngir ñi nga xam ne dañ ko yittewoo ngir daara ji nga xam ne daf ko yittewoo ngir mu mën leen a jëriñ ëllëg ndax ëllëg la leen di loolu yëpp di jëriñ incha allah maa ngi leen di bàyyi ci kanam tuuti dinaa ñëwaat Biram Pouy ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ci plateau bi di nuyu bu baax a baax professeur di nuyu Mouhamadou Kandji mi nga xam ni daaray kokki la génne nekk ci plateau bi di journaliste jàngee daaray kokki yéen ñëpp ñu leen di nuyu di leen siyaar dig la gërëm bu baax di gërëm ki nga xamante ne mooy euh, Oustaz euh, Ahmed Diop nga xamante ne fee lépp loo xamante ne mooy aju ci la vraie gestion du daara moom moo koy gérer moo tax lui il est capable de les vrais chiffres nga xamante ne actuellement plus de ñoo ci yokkaat 700 nag euh, am na école yu mag yoo xamante ne sax mënuñu effectuer 700 quand tu rajoutes 700 ci benn école mooy wane ni maanaam fit bi nga am mais li am solo rek moom mooy euh, daara moom mbiru borom bi de